أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko xam ngeen ne waxtu yi nu nekk ci biir réew mi yëpp coow lu bari moo fi am dimb rek ñu ngi doon daje ci jumaa ju mag gi nekk fii ci en face préfecture jullit yu bari teewoon nañ fa ginnaaw ba ñu tasaaree information yi ne jullit yi dañ fay daje jullit yu bari daje woon nañ fa ngir di naqarlu li waa ji wax jëme ko ci lislaam jëme ko ci alquranul karim jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daanaka sax mbox ji mën naa dem ba ci borom bi tabaraka wa taala waaye waxam yooyu mu wax yépp ñu dana bëgg insha allah ci kàttanu borom bi di ci tànn benn part benn di ci fàttali mbokk yi la ciy dëgg waaye ak di leen bàyyiloo xel ne ñi mel noonu tey ci réew mi dañoo bëri daf ci am ñu am fit di sacrifier seen dund comme yenn jullit yi ni ñu gëmee di sacrifier seen dund di ko jox yàlla ñoom it ñu gëm seeni gëm di sacrifier seen bopp pour seeni kilifa kontaan waa jooju ngeen dégg muy Omar Sankare nii la mën a mel mënul nekk kuy dimbali lislaam mënul nekk lu tax c'est parce que Senghor moo ko yar Senghor moo ko nàmpatal moo ko jàngal moo ko formé ku Senghor yar nag lan ngeen ci xalaat mooy nii la mën a mel parce que Senghor moo waxoon ne dinaa fexe ba Sénégal ñu nekk ay mauvais musulmans jullit yu bon loolu moo doon mission am dafa réussirul kon tey jii Sénégal kenn du fi wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kenn du fi julli ku mel noonu nag bu yaree waaju mel nii jóg attaqué l'islam attaqué jullit yi attaqué Qur'an attaqué yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam warul nekk mbetteel dégg ngeen ci wax yi mu wax mu ne alquran daanaka culture grec yi la yoo xam ne yonent bi moo ko liir rek dajale ko indil ko jullit yi bi isnillah mbokk yi fukki tomba ngi nii yoo xam ne ñun ñépp bu nu àndee déglu ko benn par benn ba mu jeex fukk yépp dinañ xam ne alquran du culture grec fukki tomb yuy wan ne waajooyu ak ay mbokkam ak ay sëriñam safaan lañ wax dañoo wax li nekk ci ginnaaw dëgg waa ji dafa wax rek ngir ay patron am kontaan parce que nit ñi xam nañ fu mu bokk xam nañ fu mu féete xam nañ moom mooy kan waaye loolu yëpp mbokk yi du mbetteel xam nga lan mooy mbetteel ci Sénégal ku fi wax xalifa tarixa ñu rey ko d'accord ngeen wala ku fi wax xalifa tarixa kilifa bu jiite benn tarixa ci Sénégal koo wax dara dañ lay rey wala ah wala d'accord woon ci loolu non d'accord yéen di dafa mel ne d'accord woon nañ ci de ah ku fi wax benn kilifa tarixa nu lay def waaw kilifa tarixa yeeg yonent bi ku gën a màgg ndeysaan Sénégal daanaka daal sa yaram day daw ibadallah واعلموا أن أمثال هذا الملحد الكافر nanu xam ne misaalu waa ji nga xam ne dafa ate nekk ab yéefir ab kaccoor ñu mel ni ñoom dañ leen war a freiné dañ leen war a génne ci milieu jullit yi li dangereux mooy waa ji ab professeur la su ay doomi jullit la nar a jàngal lay jàngal ñooñu koy kii bu jàngalee ay doomi jullit ba pare ci ñoom ñooñu ni ñuy mel comme moom parce que moom ki ko jàngal noonu la mel moo tax mu mel noonu wa amma quran kalamullah xaq fa hada mimma la shakka fi alquran waxu yàlla la wax dëgg yàlla di discuter sax di ci wax naan di ci di ci insister sax dëgg yàlla normalement war nañu wax ne jaadoo tut tey fi àdduna bi toll bi lislaam tàmbalee ba tey alxuraan nekk fi sikki sàkka nekku ci ne alxuraan waxu yàlla la ay addilla yu leer yu ne weng leer nañ mooy wane ne alxuraan waxu yàlla la dalil yi ak tegtal yeeg leeral yi wane ne alxuraan waxu yàlla la dafa bari bari bari bari ba kenn mënu ko takk pour li tax sax ma wax ko ma wax leen ne fukk la mooy dafa dul xej mais fukk yi boo ci boo ko amee di nga mën a argumenté wu bu leer ëllëg ak si biir koo déggati ku mel ne misaalu kàccoor bu bon bi di nga mën a yow ay argument yu leer ne alquran du waxu yonent bi du culture grec waaye waxu borom bi tabaraka wa taala la loolu li ci njëkk mooy alquran yàlla bi mu ko wàccee dafa lancé défi dafa samp ndëndëm ne nit ña ginne yi la ci yemale ne nañu indi bi misli hada alquran alquran bi muy wàcc arab yi di commencé wax ñëpp di commencé wax yàlla dane wax leen lu mel nii rek yéen kay jarul nekk fii di sonn moom dana culture grec la na dem ci gereg yi ak ay mbokkam yëpp ñu dajaloo ñu indi ñu xool alxuraan loolu la njëkk a lancé défi mu ne nañu indi comme mislu lu mel ne rek haza alquran fa ajazu ñoom ñoom ñu tële jamono yooyu kenn indiwul septième siècle summa tahaddahum an yaatu bi asara suura yàlla ne leen léegi dama waxoon ngeen indi lu mel noonu léegi indi leen fukki saar alxuraan ñaata saar la 114 yàlla ne leen indi leen fukki suura bi asara suura asara fukk nañu tàmbalee qul a'udhu bi rabbin naas rek jëm waylu li kulli nañu indi lu mel noonu ñii di coow fii sax musaylimatul kazaaba leen tane professeur Sankare billahi musaylimatul kazaaba ko tane ndax moom doon na jéem a indi alxuraan sax indi na inna ataynaaka al jawahir indi na alfiilu mal fiil indi na wal aadiyaati nataxan moom sax jot naa indi ay saar moom moom di indi lu ne ne alxuraan la jot naa créé ay affaire am alfiilu mal fiilu wa ma adraka mal fiilu lahu unuqun tawil yooyu inna yan la ne inna ataynaaka al kawsar moom mu ne inna ataynaaka al jawaahir gis nga ku mel noonu sax moo tane jaaru gaa yi nga xam ne seen làkk arab sax des na waaye kanamam gi am na lu mu leen di wan kanamam gi borom kanam yu mel noonu yëpp dañoo contre l'islam seet leen ko ak ñoo bëri Sénégal su ma amoon fit tey ma wax leen juróomi nit yu nuroog moom kanam ñëpp Sénégal duñu ay julli ay yéeféer lan te dañuy tuddoowoo l'islam am na ñoo xam ne seen xel sax war na cee dem xam ngeen li may wax ah bu leen ñu sonal waay alquran ne leen indi leen fukki saar fa ajazu summa tahaddaahum mu gën a safal défi yi gën a dëgëral bi an yaatu bi misli suura minhu indi leen sax nag benn saar léegi falam yastatiu mënuñu indi benn benn saar sax ala raxmi min allazina tahaddaahum kaanu ablaghul xalq wa afsahuhum te ñooñu alquran doon waxal dañu dégg arab am xam-xam ne keng xanaa déggu leen walid ibnu mughira bi mu dégloo quran yàlla moo nu ko nettali ci ban saar surtout mu dassir lan la wax ba mu dégloo quran summa nadara tekk romb na yonent bi di jàng quran rek mun a tekk taxaw bàyyi xel summa summa nadara summa abasa mu ne ñëkk ñëkkal kanam gi dem dem dem dem ba dara desul lu dul mu nangu mu ne in hada illa sihrun yusar in hada illa qawlul basar parce que lu tax gaa yi bi mu dégloo ne kecc mbokk yi ñëw wër ko ñu ne ko ah yaay kilifa gi de yow rek lan yaakaar nag Omar dem na Hamza dem na diw dem na diw dem na kur yaakaar mu dem yaa ci des loolu la yaay sunu sang bis boo demee mu ne ah in hada illa qawlul basar loolu ko feree ne waaye buñ ko jayul woon mu dem alquran a mel noonu dégg leen Tufayl ibnu Amr Tufayl ibnu Amr dafa jógee ci dëkk yéeféer yi daws ñëw màkk mu ñëw fekk ñuy xeex lislaam comme tey gaa yi lan la ñuy wax bu leen déglu muhammad bu leen déglu xulaama aba talib fa inna lahu kalaaman mu ngi yor wax joo xam ne yasxaru bihi man yasmau da ciy njabar ku ko déglu fii sax Sénégal dañ koy wax waaye man de damay déglu conférence ñu ne la bu leen déglu ñii bul déglu ñii bëri na fii koy ñëw tafsir ñu ne la bul dem ah yow ci xamoon nañ ne bu mu fa demee ana waa jooju doon bëre buggoon nekk mbër ñan la doon àndal fii di ñëw dars mu xëy war a entraînement ji ne dematuma papam ne ko waxoon naa la bàyyil gaa yi ngay àndal alxuraan a ngi noonu de wallaahi waxu yàlla la mbokk yi tu fayl gaa yi tiital ko ne ko bul déglu alxuraan mu jël ay coton witeen daal di saañ nopp yi ba mu ne ket mu ne su ma demee Kaaba ga bu fa yonent bi nekkee buy wax duma ko déglu mu ñëw fekk yonent baa ngi wéeru ndeysaan di jàng Qur'an alif lam mim as-sajda waaw boo dégloo tey Xalilul Xuseyri mu jàng alxuraan nooy def nga déglu Abdul Basit Abdus Samad nga muy jàng alxuraan nooy mel nga déglu Matrud nga déglu Huzayfi nga déglu Sudaysi nga déglu Basfar nga déglu Idris Abkar nga déglu Manshawi ku nekk da nga naan kii moo raw kii moo raw kii moo daq kii moo gën a neex boo dégloo ki alxuraan doon wàcc ci moom nag noo war a def Muhammad allahu akbar moom mi yor ah affaire yi mbir yi mu xam ko kon mu ko doon jàng nan la ko doon jàngee waa ji ñëw fekk yonent bi di jàng alxuraan léeg-léeg mu jege si yàlla jël alxuraan bi laxas ko ci ngelaw li dóor ko ci nopp yi mu bënn witteen yi romb tempa bi wàcc ci xol yi mu jékki-jékki daan ne man de dof laa ndekki man ndeke dama dof man ku fayil man ni ma ni ma xamee wax ju normal waxi nit waxi jinne waxi rab waxi seytaane naka lañ may tiitalee rek ma fatt samay nopp fa kayfa uiru aqli xëyri naka laa jëlee sama xel dénk keneen waaye tey maa jege kii su waxee lu normal ma jël bu waxee lu jaaduwul ma sànni ko fële mu ñëw ne ko dégg naa say mbokk li ñu wax ci yow bu dee dëgg la yàllaa la yónni waxal alxuraan ji ngay wax nii waxal ma dégg yonent bi daal di koy jàngal alxuraan mu daal di yuuxu ne ko ya rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihimu zina farsilni ilayhim yonent fa ma jóge dëkk ba ña ngay naan sàngara ña ngay njaaloo ña ngay def yu bon yónni ma ma nekk benn yonant bu leen génne moom moo ne alxuraan waxu yàlla la alxuraan bi mu lancé ñi défi nga xam ne ay ponkal lañ woon ñu dégg arab ba pare wàcc ci seen làkk innama nazala bi lugatihim wa maa zalika faqad a'lanu ajzahum at tàmm looloo leen di wane ñoom jamono yooyu dañoo feeñal seen lompoñ seen ñàkk seen tële pour ñu indi lu mel ne alquran borom bi tabaraka wa taala mu wax ci quranul karim mu ne qul la in ijtamaat al insu wal jinn ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walaw kana ba'duhum li ba'din zahira maa ngi leen di yëgal ne yéen nit ñi su nit ñi ak ginne yi dajaloo woon ci benn saal ne dañuy indi lu mel ni alquran laa yaatuna bi misli duñ ko indi mukk ci àdduna yàlla bàyyiwul kenn de lan la wax la in ijtamaatil insu wal jinn bàyyiwul kenn xam nga yomb na rek nga toog ne alquran kii liru gerek la fa yomb da ngaa waroon indi 114 saar ci gerek nga ne nit ñi nañ ko jàng ñu xool nga ne xool leen li ma wax a ngi ni waaye jékki-jékki rek daan ne alxuraan tiitiru gerek la nag dafa yomb booy weddi day fekk boo weddee nga teg ca place ba lu luy convaincre nit ñi mais nit ñi xam nga lan mooy seen problème tey l'islam da leen a sonal kii kii toog fii xam na ci dara kii toog nii kii xalifa mii barki démb ki tuuboon mu ngi fi de allahu akbar mu ngi nii toog yëkkati na loxo bi bi ñu demee seen kër ndeysaan seen famille ñu wax ba sonn pour mu génn ci li mu nekk bi ñu ko joxee kàddu lan la wax mi ngi nii toog fii moom xanaa tey tey moom du ma fen mi ngi nii toog moom moo ko wax seede baa ngi nii maa ngi nii toog mu ne yaay yéen ñëpp xam ngeen ne bi ma nekkagul ci lislaam maa fi gën a bon xol waaye bi ma duggee ci lislaam ba léegi sama xol bi dafa set leer maa fi gën a baax yéen ñëpp xam ngeen loolu lislaam a ngoog loolu nag la ñuy ñaane rek loolu la ñuy ñaane loolu la ñuy soxale parce que xam nañ lan mo lislaam lan la xoolal islaam li mu tere ne ko bu ko kenn def yëpp xalaatal lépp lan la parce que lu baax la ah wax leen ma ne lislaam li mu tere ne bu ko kenn def yëpp laa wax konteel commencé lim bu fi mu yem lan moo ci lan moo ci baax waaye lislaam lim ne def leen yëpp lan la ci nit warul def ah allahu akbar loolu mooy ne diina ji diina yàlla la waxu yàlla la waaye ndeysaan comme ñoom bugguñu lu baax comme bugguñu nit ñi baax mu tax foog ñu taxaw di ci jéem a gàllankoor pour nit ñi duñ ci dugg zaaru waa ji nga xam ne ndeysaan ab jullit bu funax la ab jullit bu nëb la bu ñu jël yar ko jàngal ko formé ko waaye xam ngeen ne papaam ko gëmoon yàlla la ko am doom tudde ko Umar papaam jàmbaar la waaye doom ja boo amee doom nag nga dénk ko sa noon nii lay mel boo amee doom nga dénk ko sa noon sa noon yar ko ba mu màgg nii lay mel moo tax ba la ñu jël sunu doom yi di ko dénk ci sunu noon yi dañu def suñ doom yi dara dañ ci def dara bu luñ ci dugal loolu du dem dañu fexe xale yi am ay seggukaay seggukaay nañuy seggee café ak lan la ñuy segg ah ak lan la ñuy segg bisaab ak lan la ñuy segg ah buy ak lan meew dañ koy segg ak lan. dañ koy segg de. allahu akbar. mu ngoog kon nag alxuraan moo ci gën a yay diine moo ci gën a yay moo tax alxuraan di la wax ne lépp lu la indi rek mu ne wazinu bil qistaatil mustaqim na ngeen ko peese lu leen indil xool leen ko ngeen teg ko ci balance alxuraan ak sunna léegi yàlla ne la déedéet bul jël égiw bi ne la nii xoolal tey ñii li ñu yendoo ci rajo bi ak barki démb ñu naan yonent bi moo nekk Sénégal mais loolu du ay caaxaan ah loolu du ay caaxaan ngeen defa ne yonent bi kañ la ñëw Sénégal lu mu fi wut caaxaan yooyu war nañ ko dépassé mais nit ñi seen bopp yi di ñëw ndëpp ñu ngi nii ah dëgg la kay sallallahu alayhi wa sallam est-ce que yonent mos na ñëw Sénégal boo ngeen def loolu seen bopp mos na ñëw Afrique yonent bi ñuulul fenn weex fenn dafa mos a weex Màkka la juddoo Medina la faatoo ñu roob ko ci Medine yaa na dañ la fi ñëw bu ñëwee fi lu mu fi doonut comme fi seet si nañ génn suñu bopp yi caaxaan yooyu réew mi mooy réew moo xam ne ku nekk loo neex wax fay nag ñu koy def suñu bopp yi duñ dem alquran waxu yàlla la borom bi moo lancé défi ne nit ñi dañu dajaloo ñoo ginne yeeg ñépp ñu indi wax ju mel ne alquran walaw kaana baaduhum li baadin za yàlla mu ne ñoom ñëpp buñ dajal woon di dimbalante su savant yi ci àdduna bi yëpp dajaloo woon nit ak jinne yi ñoom ñoom ñu def leen ci benn saal loose leen ñuy lekk di naan sé siècle du ñu indi alxuraan xam ngeen ne gars yi buñ ko mënoon indi nañ boobu léegi waaye xaste rek du dëgg nangam ak nangam verset satanique la ku jóg nañuy indi waaye yàlla moo ne duñ indi te yàlla moo wax dëgg beneen aaya buy wane ne du dëgg yàlla li mu wax mooy dëgg mooy am yaquluuna aftaraa qul faatu bi ashri suura qul faatu bi ashri suura mislihi muftarayaat wadu man istataatum min dunillah in kuntum sadiqin borom bi nee na waaw yéen da ngeen naan Muhammad dafa créé alquran da koo sos waaye li mu fekkee Muhammad dafa créé quran da koo sos yéen indi leen fukki aaya bi asri suura indi leen fukki saar yu mel noonu woo leen ku leen neex ku dul yàlla bu fekkee ne wax ngeen dëgg acca loolu yàlla nga ko wax ci suratul Hud aaya 13 borom bi wax ci suratul baqara wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu fa'tu bi sura min mislihi wad'u shuhadaakum min dunillah kuntum sadiqin bu fekkente ne da ngeen di sikki sàkka ci yàlla li mu wàccee ci sunu jaam bii di muhammad indi leen benn saar bu mel noonu woo leen seeni sang seen ku leen neex fekkee yéen a wax dëgg indi leen benn saar bu mel ni quran wa hadha tahaddi ayuha al ahbab allazi tahadda allahu taala bihi kuffaaru quraysh baaqin ila qiyaami saa yàlla lancé bi mu lancé défi kuffaaru quraysh yéeféeri màkka défi boobu dafiy des ba yowmal qiyaam ba a yàlla di lem asamaan ak suuf dafiy des du fi jógee parce que yàlla xamoon na ne yéeféeri Quraysh danañ jur jur jur jur ba mu yegg si Sénégal Sénégal am ay yéeféer yuy taxaw yu ñuul kukk yuy wax la seen maam yaa waxoon démb ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax al kufru millatun waahid moo tax yonent bi bàyyi yàlla bàyyi fi défi boobu mu ne ila qiyaami saa falam yastati ahad min alxalq an yatiya bi misli hada aw qaribun minhu wallahi ba àddina bi di jeex kenn du indi lu mel ni alquran ci mbindee fi kenn du ko indi lu mel ni quran wala lu ko jege kenn du ko def abadan kon tomb bu njëkk ci fukki tomb yooyu di ñëwoon ne alquran wax yàlla la lan moo ci njëkk défi yi leen yàlla lancé ngeen jàpp li may wax de défi yi yàlla lancé ñaareel bi mooy an allah subhanahu wa taala takallafa bi hifzi kitaabihi subhanahu wa taala yàlla moo garde yàlla moo sasu moo coobarewu moom yàlla ne téere bi maa koy wat téere bi kañ la wàccoon septième siècle ba ba léegi gaa yaa ngi ci bu ba léegi ñu ngi ci musuñoo noppalu waaw jaxase nañ tafsir yi yàq nañ ay aaya yàq ay ay xarf yàq ay kalima waaye chaque jour rek jullit yi defaraat saa ñu demee ne dem nañ rek jullit yi indiwaat am na benn waaye sax boo xam ne tey ki nga xam ne jullit ñaa ngi jëriñoo ci téeréem nga xam ne dafa bind benn téere def ko mujamul alfaz tafsiru quran mu def firi moo alquran pour lan la ci doon jublu pour yàq alquran ndeke xamul ne yàllaa ko ngemb pour mu liggéeyal jullit yi ba mu ko defee ba pare jullit yëpp daw jënd téere bi ku bëggati baat ne baat rek da ngay daw jël ko daal di tafsir noppalu noonu dafa yaakaaroon day yàq ndeke day liggéey loolu la leen yàlla nattoo lu nu def dafa ne dañuy yàq jullit yi jëriñoo loolu wax moo tax borom bi ga wattu téere bi boobu ba léegi ku jàpp ne téere bi dafa am lu ci nekk wala dafa am lu ñu ci dugal demal nga jàng qul a'udhu bi rabbi naas ci sa kanamu doom waxal qul a'udhu bi rabbi naas ilaahi naas ci julli jiite su ngeen su ngeen suñ fi jógee yéen ñëpp bu ngeen demee na ngeen jéem a naafila ñaari raak ngeen woo seeni doom wala nga woo sa soxna wala nga woo xale yi nga bokkal koñ nga jàng fatiha ba pare nga ne qul a'udhu bi rabbin nas ilahin nas nga xool lu la xale yi di wax imam màkk bu ñëwoon tey léegi di ñu jiite gee ñu abal ko minbar bi bu ne bismillahi rrahmani rrahim maliki yawmiddin lu ngeen koy wax ah subhanallah lu tax ngeen ne ko subhanallah xoolal téere bi ci bopp yëpp la nekk allahu akbar loolu rek moo lay wane waxu yàlla la yenn saa yi nga gis xale boo xam dañ ko bindal leçon fukki ligne du ko mën wala yenn saa yi nga gis koo xam ne cahier 32 pages leçon ñu nekk université kan moo ci tari cahier 32 pages leçon cahier 32 pages ñu ne tari Bakara ak 32 pages lu ëpp ah Bakara ak 32 pages lóob Bakara 32 pages ak Ala Imran lóob Nisaa yi Maayda boole leen yooyu saar rek ngeen yemale ko foofu bu ñu demalee kay 32 pages nañ jël kay 700 pages bopp ñu boole Bakara Ala Imran Maayda Nisaa yi ñu tëmbal ci an am nga gis ku ko dugal ci boppam di doxan toog moom soo ko fëggoon guddi muy nelaw nga wax benn aaya mu eggali ko waxuma la loolu waaye 114 saar yi nga gis ku koy doxantoo te du benn nit de te doone loolu ci arab yi rek la am kon kon dëgg-dëgg arab yi moom jàmbaar lañ ay tubaab ay français ay américain ay allemand ay anglais ay ay ay ay ay léegi léegi balaa may ñëw benn xale boo xam ne dafa gumba bi muy juddu dafa gumba ci ngumba gi la jàng alquran da ngay dem internet nga tappe asgaru xaafizin fil asgaru xaafizu alquran fil aalam ñu génnee la xale bu am 4 ans moo gën a moo gën a néew tey ci ñu mokkal alquran ci àddina bi 4 ans li ma leen di waxu yàlla la te yéen a ngi ni mun te mun leen mokkal cahier leçon 32 pages allahu akbar parce que yàlla li mooy hifz yàlla moo ko wat daf ko ci bopp yi fi mu nekk nii ku jéngu rek mën yàlla waxul ñii la ñii la ñii la wallahi ñun ñi toog fii ku ci jéngu woon léegi nga mokkal téere bi jéngu rek dugg ruq léegi ne la yitteel léegi nga wattu ko ay nit dañuy dugg kaso génn mokkal quran kaso laa wax ñu tëj leen gis nga ko waaw jërëjëf kenn na ngoog ne ne gis na ko moom ay nit laa wax dugg kaso ñu tëj leen de ñu ne ah xaaral ma tuub rek benn yoon dugg ci kaso bi ñu nekk fa ñu tëj leen ñu génn mokkal quran loolu yàlla moo ko def léegi sax waa ji day jàngale mu ngoog jërëjëf kon yàlla moo hifz téere bi amul taxriif kenn mënu ko soppi tabdil kenn mënu ko wëlbati kenn mënu cee dolli kenn mënu koo wàññi yenn saa yi gaa yi yokk yenn saa yi gaa yi wàññi lu ñu yokk gaa yi dindi ne bokk ci lu ñu wàññi gaa yi dugalaat ko ci ne des na yàlla ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun wa munzu an anzala alquran ala qalbi muhammad sallallahu alayhi wa sallam qabla aksar min alf wa arbaa mia am wannaas yatanaqaluunahu jiilan baada jiil mbokk yi bi yàlla wàccee alquran ba tey ci xolu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam gis ngeen waa ji foofu dugal na fa benn fen nee na yonent bi jàng na ndax alquran yàlla da ko ne iqra iqra ci français mooy liiral gis ngeen gis ngeen gis ngeen yi sew sew yooyu mu ne kon kuñ ne liiral ça veut dire que mën nga liir gis ngeen waaye waroon naa continuer li ci tegu bi ko jibril ne iqra lu yonent bi tontu ma ana bi qaari beneen bi mooy bi mu naan ko iqra est-ce que dafa indi pilim ak big ak encre ci xaaru xiraa la ko fekk ne ko iqra mu ne ko ma ana bi qaari jàngal mu ne ko mënuma jàng wax na dëgg musul jàng yàlla moo ne ko ma kunta tadri mal kitaab wala al iman amoo woon ngëm xamoo woon benn téere yàlla moo ko wax walakin jaalnaahu nuuran maa ko def leer jox ko jibril mu koy sotti ci sa xol gars yi dañoo soxol rek waaye texte yi dafa leer waaye nag lii moo la ne alquran wax na dëgg ndax yàlla waxoon na wala yazaaluuna yàlla waxoon nañu wala yazaaluuna ñun ñii ñun ñoo bàyyiwul xel yàlla waxoon nañu ne waddu law tudhinu yàlla waxoon na waddu law takfuruun ñoom bëgg nañ ngeen weddi comme ñoom nañu weddee ngeen yem fa takunu sawa ñun ñoo bàyyiwul xel alquran ba mu commencé wàcc ci xolu yonent bi lu ëpp junni at ak ñeenti téeméeri at nit ñaa ngi koy toxalante génération par génération sahaaba ya ñoo mokkal quran taabiin yi mokkal ña topp ci ñooñu ña topp ci ñooñu ña topp ci ñooñu ba fii nu nekk kan ngeen mës a dégg ci àddina ñu wax ne alquran bi dafa manqué wala dafa am saar yuñ bindul kan wala chia yu bon yi te ñoom ak ñoom a yem benn lañ ñoom ak ñoom ña mës a jóg yëpp di critiquer dañuy mujj tuub xam ne alquran waxu yàlla la dëgg la kon loolu mooy li am mbokk yi dañ koy toxalante génération par génération ci lettre yeeg bindi geeg lépp su kenn bëggoon changer lenn comme ni mu amee woon ci ay jamono ay nit jël benn kaamil bind ba ñu yegg fi yàlla naan wa man yabtagi gayra al islaama diinan falan yuqbala minhu ñu daal di bind wa man yabtagi al islaama diinan falan yuqbala minhu gis ngeen wax bi yàlla dana képp ku jàpp leneen lu dul lislaam kenn du la ko nangul ñoom ñu daal di bind ku jàpp lislaam kenn du la ko nangul benn baat lañ dindi baat bi ñetti xarf la muy gayra képp ku jàpp leneen lu dul lislaam kenn du la ko nangul ñu ñoom képp ku jàpp lislaam du la ko nangul ñu tasaare kaamil yi def ko kaamil yu rafet maye ko ci àddina bi bi ñu toogee ba jamono ñu ne nañ contrôler sunu kaamil boobu ñu maye woon ñu xool ndax jullit ñaa ngi jàng alquran ñu ne kaamilu sàngam bu mel nangam ku ko indi dinañ la neexal mbetteel gu ñu am mooy bi ñu ubbee paas boobu ñu gis jullit yi ku nekk ka képp ku ci amoon kaamil ba nga yeggee foofu rek da ngaa def foofu flèche daal di bind xayra ci kaw def ci sa ñaari toom kaamil yëpp lañ corrigé gars yi dofuñ de li tax ñuy attaqué Qur'an dafa am kenn ci ñoom ci seen sëriñ yi ku musa wax ne ma daama hadha al Qur'an mawjud fi aydi al muslimin su fekk feek jullit yi ñu ngi gëm Qur'an kenn du leen mënal dara dara lañ leen dul mënal ma daama la wax mawjud fi aydil muslimin mu ne ñaar suñ ko dindiwul ci àddina bi jullit yi kenn du leen mënal dara mooy alquran ak arafa moo tax yéeféer yi ci wala église bi ni ñu ko defaraate xam ngeen lan la jàkk ji moo leen tiital jumaa ji naxuma leen de jumaa ji moo leen tiital moo tax gis nga église bi ni ñu ko defaraate parce que dañuy jàpp ne dëgg la alxuraan du ànd ak seytaan fu mu nekk seytaan day daw iblis ñemul quran loolu yàlla moo ko def looloo tax mbokk yi jullit ñi bu ñu gëmee alquran dañuy dem yéeféer yi liñ gën a ragal ci àddina mooy alquran ak jàkk ndax ñoom seen problème mooy waaw jàkk lan moo tax jullit yi di dem jàkk da leen di jaaxal bàyyi xoolal France France ni ñuy jàppee islamiste yi ñu xam ne diw islamiste la ñiy julli ji fajar lañuy la ñuy ciblé xam ngeen France amul ay jàkk yu bari nga gis benn waaye bu jógee Thiès di julli si Dakar suba maanaam ville yi noonu la sorante waa ji otoom lay yor su déparé rek police topp ko bu ñëwee droite ñu jël numéro oto bi daa ne kii islamiste la ku julli fajar ñara jaral nga jógee Thiès Dakar kii islamiste la am na ñu mel noonu am na julli jaral na leen lu ne duñ ko tardé fu mu leen fekk ñu jóg voilà loolu moo leen jaaxal waaye ñii leen lañu gis leen lañu gis ressemble yi ñuy ressemble te kenn du leen jox convocation xoola vendredi mosquée yi kekk lay def xoola arafat nu mu mel yooyu moo leen loolu moo leen di métti seen xol yi di dagg moo tax dootuñu mun a nelaw léegi nag ñoom buñ nekkee ci seeni kii di ko ngunum ngunumee dof yi comme waa ji Sankare ne ñun dinañ ko génne ñun waaw wala fi dañuy wax ne naar bu ndaw lu mu wax ci pénc ma rek fu mu ko déggee kon yéen a ko wax mbokk yi mu ngi noonu jiil baada jiil la al génération yàlla garde ko kenn mënu ci changer dara képp ku ko jéem di nga am gàcce comme Omar Sankare nu mu amee gàcce nu mu toroxee naan instant bi génn tuma ndeysaan nga gis xale yu ndaw ñu leen koy jàngal ci daara yi ñu koy def ci seen bopp yi xale yu ndaw di concours àddina bi ah partout ñuy dajale ay xale ci saal dëkk bu nekk indi ñu fa mokkal Quran yooyu moo leen métti waaye loolu yàlla moo ko def mbokk yi ñetteel buy wane ne alquran waxu yàlla la mooy buluugul quran alxaaba fi balaagati min awali ila axiri alquran commencement ba fin keng la def tàmbaleel fatiha ba naas wax ji yàlla wax kenn mënu ko dindi te dafa nose ànd xoolal bu ñu koy jàng rek da ngay gis fii koo xam ne ndeysaan déggul arab ñu jàng alxuraan rek mu jooy ñu déggul sa arab tubaab bi bu ko dégloo déggul arab jooy anglais bi bu ko dégloo déggul arab jooy saraxule bi déglu ko déggul arab jooy tukulóor bi déglu ko déggul arab jooy xeet yëpp ku déglu rek jooy te yow déggoo li ñuy wax kon boo ko déggoon nag loolu moo leen di wan ne waxu yàlla la tabaraka wa taala ci xol yi lay dugg parce que yàlla moom moom xol yi munoo yenn saa yi nga gis koo xam ne ndeysaan imaam day kàbbar jël saar di jàng affaire bi dugg ci xol bi mu bañ yuuxu muy bloqué wu waaye yëf yi topp ko day mujj rek sa leeru parce que waxu yàlla la xam nga bu njëkk ba Sénégal bu ñu gisoon kuy jàng alxuraan di jooy wala imaam màkk di jàng alxuraan ñeneen ñi ne kii naaw di jooy xam nga waa Sénégal lu ñuy wax ñii seen maam yi ñoo doon dóor yonent bi moo tax loolu la ñuy jooy ngir bañ nga jooy quoi waaw waaye loolu la ñu daan wax di freiner nit ñi waaw gis nga ñi nit ñi bone kii xam na li muy jooy ay maamam ñu doon dóor yonent bi man lañ pas daan wax est-ce que loolu la fekk waa ji ndeysaan xol bi la alhaakumu takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa taalamuun thumma kalla sawfa taalamuun xale bi yuuxu xëm mu xëmmili ko sëriñ bi eggali service xale bi dee xoolal al isaar boobu nag ni mu ndawee ak ni mu yëngalee xoli yowmal qiyaamati alhaakumu takaasur ah yitteel na leen alhaakumu yitteel na leen soxlaal na leen atakaasur bëri lante alal hatta zurtumul maqabir ba ngeen yóbbu ko ca bàmmeel ya di bëri lante alal ba ngeen dem ci bàmmeel yi naan sama maama tëdd fi borom alal la woon sama maama tëdd fi borom alal la woon wala ngeen yóbbu bàmmeel ya di tabax bàmmeel yi ay karo marbre di ci taal ay lampe di ci def ay fleur di wane ne yéen ay borom xaalis ngeen kalla sawfa taalamun cay su ngeen xamoon allahu akbar loolu jar na tëdd summa kalla sawfa taalamun xale bi xam yeggali leen ay ngeen xool li ci tegu kon alquran mbokk yi waxu yàlla la tabaraka wa taala fi awalihi ila axiri commencement ba fin soo gisee alquran ni mu tegalee atte yi ndeysaan naka la jullit yi war a dundee lépp mu leeralal leen ay atte xoolal atte miraas xoolal atte sëy ah xoolal atte nit ak wéy juram wa qada rabbuka an la taabudu illa iya xoolal yàlla mu ne même bu fekkee sa ndey ak sa baay yéeféer lañ wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye wa sahibhuma fi dunya maaruf allahu akbar sama ak say sax yéeféer lañ yàlla mu ne yéeféer lañ de waaye nag defal lu baax seen wet jëflanteel ak ñoom lu baax xoolal rek yaay ndey ak baay ni leen yàlla bàyyee xel waaw alxuraan waxu yàlla la te ndey ak baay yàlla dakaa dénkaane yàlla dafa ne maa la dénk maa la ko dénk wa wasayna al insana bi walidayhi maa la dénk sa ñaari wayjur dama la kaa dénk allahu akbar loolu moo lay wane waxu yàlla la xoolal mu tere lépp lu bon bu leen naan sàngara sàngara ban njëriñ la am mu ne la kullu mudminin xamr innama alxamr walmaysir walansaab walazlam rijsun min amali shaytan wala mu tere la carte mu tere la njaaloo xoolal lii yëpp dara baax ah benn waaye ne ne noonu njaaloo neex na de ah ah kaa ñu def ko sa doom wala ñu def ko sa yaay looy wax ah ah waaye tamit yow loolu da nga may wax loolu xanaa sax am dina ma wax xanaa kii dafa dof loolu nu mu koy waxee ci jàkka ji dama lay leeralal boo nee daa baax aca indi sa sœur ñu def ko wala indi sa yaay wala indi sa maam indi sa bàjjan kan moo ko nangu fii ci ñun ñu def ko sa mbokk doo ko nangu baaxul kon nag waroo ko def doomu jàmbur allahu akbar xolo waa ji bi mu ñëwee ci yonente bi ne yonente waaye man de jigéen ñi rek ñoo nekk sama bopp ñen ne ko ah rek saxaaba yi ni wax kii ni wax li ci kanamu yonente bi bàyyi duñ ko yonente bàyyi leen jàmm bàyyi leen jàmm li mu gëm la wax bàyyi leen ko rek waaye nga ni lan la mu ne man de jigéen man dem ci rek yonente bi ne ndax bu nga ko def sa yaay mu ne waaw yow tamit nag yonente loo may waxee loolu yéen ah ñi ngi ko bëgg a def ay yaayu jàmbur lañ di ki nga ko bëgg a def ah yaayu jàmbur la bëgg nga ko def sa doom mu ne waaye bëgguma ko yow tamit nag xoolal pourtant loolu moo am ci àddina bi day ku koy defi feneen te bëggul ku ko def waa këram ah gis nga islam nu muy defaree nit li nga bañ ku la ko def bul ko def keneen yonente bi ne laa yumin ahadukum hatta yuhibbu li axiihi wallahi tubaab yi ñoo yey xam nañ bu nit ñi dundoon islam rek dund àjjana ci kaw suuf kon jaru sax ñuy xaar firdaws kon fii lañ koy dund ba pare billaahi wallahi waaye nammuñu ci àddina bi lu baax moo tax lu yàlla wax ñu ne déedéet walal góor ak jigéen du ñoom ñaar la yàlla wax nañ sëy te nañ ko jaarale ci sëy ñoom ñu ne déedéet jigéen ak jigéen mën nañoo sëy góor ak góor mën nañoo sëy góor ak góor fan la ñuy sëyee ni leen yàlla bindee góor ak góor ah soo jëloon ñaari soo jëloon ñaari prise ah bii dugg ci biir nga jël ñaar nga ni da nga leen di dugalante ñaar yu am bopp yi nga ni da nga leen di dugalante nga nekk fa rek naan nii si ñu ne yow dugal li nga maa ngi pourtant maa ngi jéem de dina dugg tu dem parce que loolu du naturel bi loolu du nature bi noonu la yàlla def yàlla lim def mooy noonu mooy dëgg lim def rek moo baax alaa yaalamu man xalaq wa huwa allatifu alxabir wallahu yaalam wa antum la taalamuun lu tax wa ma utitum min al ilmi illa qalil tuuti xam-xam ngeen am yàlla mooy ki xam moo tax lu mu def rek noonu la tabaraka wa taala kon bokk na ci lii wane ne alquran waxu yàlla la mooy commencement ba fay keng la def ay atteem keng la def kenn mënu ko dindi ñeenteel buy wane ne alquran waxu yàlla la mooy wa anna al bashar mahma uutu min al ilmi wal fahmi wa quwwati al idrak fala budda an yaqa minhum al xata wa sahwi wa nisyan doomu aadama lu mu ngande ngande ngande ngande lu mu nekk ponkal ponkal lu mu am xam-xam am xam-xam day juum day fàtte day tarxiis walam yanju min zalika ayu kitaab te loolu amul benn téere bu ci mujj wadaahul basar bépp téere bu doomu aadama teg rek buñ ko liiree gis lan balaa ngay xam loolu rek defar rédaction defar insha nga jox sa oustaz fi mu nekk nii man ma defoon insha jox kenn daf may corriger ah lii nii la gën a baaxee ñu jox kooku kooku mu ne lii nii gis nga feuille bi balaa muy ñëwaat ci man bu ko 30 personnes tiimee yeneen texte lañ ciy bindaat ndax ku nekk sa déggin ngay jéem da ngay jéem yow yaa gën a dégg kii yaa ko gën a dégg français bu dee français ngeen jàng bu dee arabe nga ne maa ko gën a dégg bu dee anglais nga ne ko yaa ko gën a dégg moo tax téere yi noonu chaque jour ñu génn ci ay erreur amma kitaabillahi taala bu dee téere yàlla la nag fa innahu min awalihi ila axirihi laysa fihi ayu naw il ixtilaaf commencement ba fin amul wuute te xoola pourtant am na aaya yu nuróowee de yenn saa yi nga topp benn aaya ba caag rek nga daal di burle yenn saa yi nga topp ci ginnaaw imam muy jàng sax bisma rabbikal aala الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى قد أفلح من تزكى waqad xaaba man nga gis ñu ne ko taxawal taxawal imam imam imam imam ñu ne ko qad aflaha man dassaha wala man zakkaha man zakkaha wala qad aflaha gis nga foofu ngay ñëw ci qad aflaha rek nga départ burle tàmbale sura suratul aala nga dem jeexali ji ko suratu sams yenn saa yi nga ñëw ci alam tara kayfa faala rabbuk ah nga jàng wal fajri wal fajri wa layalin asrin wa shafa'i wal watri wal layli idha yasr hal fi zalika qasamu allazi jinan alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fiil alam yajal ñu ne la subhanallah subhanallah lan la ñu ne la alam tara kayfa faala rabbuka bi aad laysa bi gis nga ni mu nuróowee pourtant mën ngaa burle noonu dem nga ñëw ci wàllu li noonu la léegi nga tem nga jaxas jaxas ji koog wasam si te xoolal gars yi keng la def keng ah loo def nga ñëw ci suratu tiin te saari ndaw yi laay wax ni de nga ñëw ci suratu tiin nga bëgg koo jaxaseeg suratul déedéet suratul déedéet déedéet waaw feene bu waaji jàngee wa tiini wa zaytuni wa tuuri sinina wa haza albaladi alamin laqad xalaqna al insana fi kabadin ay asabu an lan yaqdira lan laa bàyyi gis nga ñu ne la déedéet déedéet déedéet déedéet laqad xalaqna lisaana fi ahsani taqwim fii kabat mu ngi nekk suratul ah suratul balad gis nga voilà te xoolal loolu yëpp wallahi gars yi dañuy nekk ci ginnaaw bu imaam jumi gars yi nag daal di koy xëcc indiwaat ko ne ko du foofu de fii la fii la mu ne alxuraan waxu yàlla la du dem alxuraan waxu yàlla la mbokk yi kon kenn munu cee def benn njuumte lu dul ñu daal di lay dellu si loolu na leer ci ñun ah na leer nañ ne lu waay indi borom bi tabaraka wa taala dina ko ko delloo ci ñaata tomb lañ nekk ñeenteel mooy borom xam nit ñi lu ñu leen jox xam-xam lu ñu jàng lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu di nga fette ndeysaan waa ji fàtte waa ji juum waa ji tarxiis waaye téere borom bi tabaraka wa taala doo ci gis benn wuute doo ci gis benn xata li waa ji di wax ndeysaan mu jël benn aaya mu ne yàlla dafa juum ceet li lay am na loo xam ne ku ko waxoon ci fenn ci am na sax benn kili ci kilifa yi fii ku ne woon kilifa sàngam dafa juum rek waaye dañ lay rey xoolal waa ji ne yàlla dafa juum ni mu waxee fii du noonu jullit yi yëgaluñ ko sax seen yaram waaye ñun kañ la ñuy mer ma laaj leen benn laaj ma laaj leen ko kañ ngeen di mer dama laajte de jullit di Sénégal kañ la ñuy mer buñ bu ñu waxee yàlla du ngeen mer bu ñu waxee yonent duñ mer bu ñu waxee alxuraan kenn du mer kañ la ñuy mer bu ñu yokkee mburu xoolal peseur peseuru peseuru caaray dañoo nangu seeni fiile rek ñu mer dem taal Dakar dem dikk taal Tata taal lan taal mairie ba bulletin de naissance yi ñu taal ko alxuraan a ngi nii ñu xas yonent baa ngi nii ñu xas yàllaa ngi nii ñu xas ana sunu mer barki dem université gis ngeen ko bourse yi lañ laal gaa ñu mer ñun kañ la ñuy mer bu ñu laalee sunu mbir rek sunu yëf ñu laalee sa jabar wala ñu laal sa doom wala ñu laal sa poos nga mer allahu akbar waaye mbokk yi nanu yàlla tax ñu mer nañuy mer ngir yàlla lan moo tax ñun duñu mer ngir yàlla yonent bi de bu laalool alxuraan bis boobu du añ du ndiir du ndékki kanam gi day changé xonk cur wallahi sallallahu alayhi wa sallam lu dul mu régler problème boobu du am jàmm moom yonent bi alayhi salatu wasalaam borom bi ne afala yatadabbaruuna alquran xanaa yéen xoolu leen alquran walaw kaana min indi gayri llah la wajadu fihi ixtilaafan kathira waay waay xanaa waay xoolu leen alquran su fekkoon ne dafa jóge ci keneen ku dul yàlla wallahi di ngeen fekk ay wuute yu ne gàññ nekk ci ay wuute yu dul jeex waaye comme amu ci ci yàlla tabaraka wa taala la jóge inna allazina kafaru bi dhikri lamma jaahum wa innahu la kitabun aziz la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ala ne yéeféer yi nga xam ne dañoo weddi quran ginnaaw ba leen téere yàlla bi dikkalee téere bi nga xam ne caaxaan du ko jóge penku du ko jóge saw du ko jóge ci kanam du ko jóge ci ginnaaw ndax ko xereñ ki dafa wàcc jóge ci borom bu xereñ bi borom bi nga xam ne mooyayoo cant mbokk yi juróomeel te ci lañuy jeexale ñu bàyyi yeneen juróomi ba ba ñu amaat dars luy wane ne alquran waxu yàlla la an alkuffar wa aadaawu lislaam alxarisina ala ibtaali alquran sallamu anna alquran la yumkin an yakuna kalaamu bashar ñoom yéeféer yooyu ñoom noonu lislaam yooyu ñoom ñoo la gën a xam ne alquran bi waxu yàlla waxu waxu yàlla la ndax ñoom jébbulu nañ nangu ne alquran waxu yàlla la xam nañ ko waalamu anna mu ne xam nañ ne alquran bi ñoom yéeféer yooyu ginnaaw ba ñu defee seeni gëstu seeni mbir yépp ñu dugg génn dugg génn ñu xam ne alquran waxu yàlla la ci lañ taxaw di ko gàllankoor jullit ñi pour ñoom bu ñu comprendre quran ñu taxaw ay barrière fexe leen ngeen gàll ngeen ngeen gàkkal tafsir yi comme mun leen ci dara fexe leen ngeen lëndëmal tafsir yi fexe leen bu ko kenn jàng fexe leen ñu koy jàng buñ ko firi fexe leen firi yi na wuute bu ñuy waxee lii dañuy wax lële tey loolu ngeen gis ci quran am na façon tafsir yoo xam ne bu la ko doon tafsiral fii ba yowmal qiyaamati doo doo doo nekk jullit te ay jullit a ko bind lu tax parce que xelu ñooñu lañ jël zaaru waa ji boo gisee benn téere bu mu bind ñu ne Omar Omar Sankare moo ko bind nga gis tur bi nga ne Omar looy wax ah kii de jullit la xaaral ma liir téere bi fekk computer bu nëb la jullit bu nëb te kuy tuddoo jullit la te du jullit xam nga loolu moo ci metti fan yi dégg ngeen mu ne man jullit laa gëm naa yàlla bëgg naa lislaam ku bëgg yàlla dina yàlla daa juum benn jigéen ndeysaan dafa bëgg jëkkër ji jëkkër ji fen mu ànd ci ndax bëgg jëkkër ji rek jëkkër ji ban fen la fen dafa toog ci digg moroomam yi di leen won ne man jàmbaar laa ne man dama musa yuuxu benn bukki rek bukki bi dee gaa yi ne ko yow yaa man a fen nu yow booy yow mu ne waay yow laaj leen sama jabar jabar yéegul de rek gaa yi jóg dafa yaakaar ne bu waxee laaj leen sama jabar gaa yi dañu naan waa kon de dëgg rek gaa yi ne ko nañ dem sam fen yi tey dina jeex ñu langar langari ñëw ñu rek fekk jabar ji muy toggaa ñu ne ko eh dañ la soxla kaay mu ñëw bàyyi li muy def ñu ne ko kii nee na dafa mus a yuuxu benn bukki rek bukki bi dee jabar ji ne waaw waaw dëgg la kay rek gars yi ne ah kon fekkee nga ko nu mu demee mu ne bukki bi ci benn montagne la nekkoon dégg nga jabar ji de mu ngay justifier bukki bi ci benn montagne la nekkoon montagne bi nag ci ginnaaw dara nekk fa léegi sama jëkkër ñëwee côté bii bi mu yuuxee bukki bi rek bukki bi doon bukki bi doon tëb bëgg a wàcc rek ndeke dafa dafa daanoo côté bi nga xam ne dara nekku fa fekku na foofu dafa sori mu daal di daanu ci suuf rek daal di dee ndax fi mu jógee hauteur bi dafa kawe mi ngi mel ne nit ku yéegoon étage étage bi amul barrière ñu lay dàq nga yaakaar ne fii daraang fi nga tëb nooy def nee na bukki bi daal di daanu de gaay na ah bu dee loolu la de dëgg la waaw kon kon sama waay wax nga dëgg ah jaajëf waay gaay ne ko wax nga dëgg dem ñibbi xanaa waroon na jeex waa ji bàyyi ba guddi mu yee jabar ji ne ko yaa mën a fen waaye yow sànq bi gaa yi laajee nga ni man nga ni man mii damaa yuuxu bukk bukk bi mu ne mu ne ko yaa ma fen loo ma fen yaa ne nañ ma laaj wala loolu dama li ma ci bëgg a wane mooy nit fi nga far yenn saa yi boo gëmul yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fi nga far su fa dëggu nekkul sax nga jàpp nga ni nga ni dëgg la gis nga tey Sénégal ñu bëri nekkuñ ci dëgg waaye koo wax ci loo nekk mu ne ñun ñoo nekk ci dëgg ah jëkkër ak jabar boo laajee jabar ñi mu ne ci dëgg la nekk nga laaj jëkkër ñi mu ne dëgg nga laaj papa ñi mu ne dëgg sama doom yi dëgg nga laaj doom yi ñu ne suñ papa dëgg lu tax parce que dañoo jege seen papa mais waaye xoolal alxuraan nag moom dañoo ne waxu yàlla la lan la wax laa yajrimannakum sanaanu qawmin ala an la taadilu idilu yàlla mu ne maandu leen ni ngeen wax dëgg doonte ne ci seen kaw la wax leen dëgg amul làq-làqal parce que l'islam dëgg la moo tax amul lu muy nëbb kon mbokk yi incha allah bismillah yeneen waxtu yi ñëwaat lu mel ne talaata àllarba wala samedi ñu con ñu continuer yeneen juróomi tomb yi des ba ba ñuy xam ne alquran waxu yàlla tabaraka wa taala la bu leen fàtte wax nañ bu njëkk bi lan la ay défi yu leen yàlla lancé kenn indiwul ñaareel bi yàlla subhanahu wa taala moo garde quran ñett alquran commencement ba fin keng la def kenn du ci gis yokk wala wàññi ñeenteel doomu aadama yi seeni jëf yëpp seeni téere seeni xel seeni xalaat ay manqué manqué moo ci nekk bépp téere bu doomu aadama indi dinañ ci gis lu manqué waaye alquran kenn mun cee gis manqué juróomeel yéeféer yi ci seen bopp xam gi ñu xam ne alquran waxu yàlla la moom lañ ñu iñaanee moo tax ñu jóg di gàllankoor jullit yi pour bañ a bañ a jullit yi bañ cee bañ cee bañ koo gëm xam ne alquran mooy dëgg su ci jullit yi jàppee ne keng nekk ci dëgg moo tax ñu bugg leen sànq bugg leen jaarale yeneen yoon pour wëlbati leen ba julli ñi duñu topp Qur'an kon juróom yooyu incha allah mooy muqaddima bi ñu bàyyi yeneen juróom yi ba ñu amaat beneen waxtu yal nañu yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko